yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak benn yàlla bëggul nit ku yëg boppam nañu bamtu nettali yi weesu benn lu tax nit ñu bare topp yeesu. ndax kéemaan yi mu def. ñaar ban bakkaar la iblis def. dafa tàmbali woon yëg boppam te bëgg a mel ni yàlla ñett rab yu bon yi lan lañu bëgg bëgg nañu moom nit ñi jëfandikoo leen ngir matal coobare seytaane yenn say dañuy feeñu mel ni ñu baax ngir nax nit ñi waaye lu mu yàgg-yàgg ci lu bon lanu jëm ñeent lan mooy liggéeyu seytaane ci àddina yàq yàlla tëral ngir yóbbu nit ñi safara juróom kan moo ëpp doole yeesu wala seytaane yeesu moo ëpp doole mbind mu sell mi nee na ci mark saar juróom-ñaar aaya fukk juróom-ñett ba aaya ñaar fukk ñett yeesu tontu leen ne ndax yéen itam seen xol dafa tëju xanaa xamuleen ne dara lu jóge biti dugg ci nit du ko mën a indil sobe ndaxte du dugg ci xol waaye ci biiram lay jëm ba noppi daldi génn ca béréb bu làqu ci li mu wax loolu yéesu daganal na bépp ñam yéesu ne leenati li génn ci nit loolu mooy indil nit sobe ndaxte ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge ak ndoxaanu yàqute càcc ak boom njaaloo ak bëgge coxor naafeq ñaawteef ñeetaan saaga réylu ak jëfi lu bon loolu lépp day génn ci nit di ko indil sobe mbind mu sell mi nee na ci Macë saar ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ak aaya ñaar fukk ak juróom benn yéen xutbakat yi ak farisen yi yi di torox ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yu gumba yi jëkk leen setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla bëggul nit ku yëg boppam nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla sibee nit ku yëg boppam farisiyen yi ak xutbakat yi ñoo doon njiiti diine yawut yi farisiyen yi yokk nañu ay santaane wala aada yu bare ci fukk ndigal yi yàlla yi aada yi ak ndigal yi ñu ngi jëmoon ci mbirum set waa Israël doon nañu jéem a topp njàngale farisiyen yi yaakaaroon nañu ne bu ñu toppee fukk ndigali yàlla yi ak aada yi yàlla dina leen dugal àjjana farisiyen yi mere nañu taalibe yeesu yi ndaxte ñoom topp ñu woon seeni aada benn bés farisiyen yi gis ay taalibe yéesu ñuy lekk ak seeni loxo te jàppuñu ci aada yawut yi balaa ngay lekk da war a jàpp ba set noonu ñu laaj yéesu lu tax taalibeem yi bañ a sàmm seen aada yéesu sukkandiku ci téere yonent yàlla esaayi ne leen xeet wi ñu ngi may teral ci seen làmmiñ waaye seen xol sore na ma seen magal amul benn njëriñ ci lu ñuy jàngale dénkaane nit kese yéesu neeti leen dëddu ngeen ndigali yàlla jublu ci aaday nit farisiyen yi joxe nañu itam santaane yu bare ci mbirum lekk yi dagan yaakaaroon nañu ne bu ñu lekkul lu daganul dinañu dem àjjana yéesu ne leen aw ñam du tax nit ànd ak sobe ñam du dugg ci xol ci biir lay dugg ba nëppi ñu génnee ko fu làqu li koy tax a ànd ak sobe mooy li muy wax ak li muy jëf xalaat yu bon ak jëf yu bon ni ki njumlang mer añaan ak yeneen yu ni mel ñu ngi jóge ci biir xolu nit yàlla xoolul nit ki xolam lay xool benn bés xutbakat yi ak farisiyen yi wax yéesu mu defal leen kéemaan yéesu tontu leen yéenay laaj firnde yéen nitu jamono ju bon ji yéen ñi fecci seen kóllëre ak yàlla waaye du ngeen jot genn firnde guddul firnde yonent yàlla yunus ndaxte ni yunus nekke woon ñetti guddi ak ñetti bëccëg ci biir rabu géej wu mag noonu la doomu nit ki di nekke ñetti guddi ak ñetti bëccëg ci biir suuf yéesu war na leen ci mbiram waaye dégguñu ko njiit diine yi li nit ñi doon gis ci ñoom lañu gënoon yitteel ak li yàlla di gis ci ñoom dañu daan solu colin gu rafet tey wut ñu màggal leen yeesu woowe na leen naaféq yeesu nee na ñu ngi jébbal yàlla ci seen alal fukk yu nekk benn waaye jubuñu amuñu worma te amuñu ngëm yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg walax njaan tey wan giléem yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yu gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set yéesu artu na nit ñi ci ñu bañ a teg seen bopp ni ñu jub mel ni farisiyen yi ñu ngi jàngal nit ñi li ñu war a def waaye ñoom ci seen bopp duñu ko def yéesu wax na aw lépp ci mbirum ñi gëm seen yoon rek ñaari nit dañu dem ca kër yàlla ga ngir ñaan kenn ki pharisien la woon keneen ki di juutikat pharisien bi ñaan waaye dafa ci boole puukare mu gërëm yàlla ci li mu gën a sell juutikat bi mu ne yàlla moom woor na te joxe na asaka yaakaaroon na ne ku jubla la ndaxte topp na ndigal yi waaye juutikat bi fëgg dënam ne yàlla yërëm ma man bàkkaarkat la moom xamoon na ne bàkkaarkat la te yàlla rek moo ko mën a musal yeesu ne leen duutikat ba moo gën a jub farisien ba fa kanam yàlla mu ne leen képp kuy yëkkatiku dees na la suufeel te kuy suufeelu ñu yëkkati la fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan la farisen yi ak xutbakat yi gëmoon ne moo leen di yóbbu àjjana gëmoon nañu ne war nañu topp fukki ndigali yàlla yi ak lépp lu ñu jàngale teg ci ndigal yi ñaar lu yéesu tontu bi ko farisen yi laaje lu tax ay taalibeem di lekkee seen loxo te fekk jàppuñu xeet wi ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njëriñ ci lu ñuy jàngalee dénkaane yi nit kese yeesu neeti leen da du ngeen digali yàlla jublu ci aaday nit ñett lan mooy taqal nit sobe lépp lu te génne ci xolu nit ñeent ndax njàpp dina dindi sobe déedéet ndaxte mënuloo jàpp sab xol juróom lu tax xutbakat yi ak farisiyen yi laaj yéesu mu def kéemaan firnde lañu bëggoon buy dëggal ne yeesu mooy sët bi yàlla dige gëmuñu woon firnde yi ñu jot a gis juróom benn ban firnde la yéesu yeesu ne gis nañu ko ba noppi lii la leen wax ni yunus nekk woon ñetti guddi ak ñetti bëccëg ci biir rabu géej bu mag noonu la doomu nit ki di nekk ñetti guddi ak ñetti bëccëg ci biir suuf juróom-ñaar lu tax yeesu woowee farisen yi ak xutbakat yi naafeq ndaxte li ñu doon jàngale ñoom daawuñu ko def nit ñi lañu bëggoon ñu màggal leen wutuñu woon lu neex yàlla juróom lu ngeen xalaat moom la yeesu bëgg a wax bi mu nee jëkk leen setal biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam set yàlla dafa bëgg sunu xol set ci bàkkaar su ko defee yàlla dina nu nangu njàpp mënul setal sunu xol ba yàlla nangunu juróom-ñeent lu tax juutikat ba gën a jub fariseen ba fa kanam yàlla fariseen ba dafa rëyoon ba mënul woon xam ne bàkkaarkat la fariseen ba yaakaaroon na ne mën na jëf ba fay ay bàkkaaram juutikat ba xamoon na ne bàkkaarkat la xamoon na ne mënul def dara ba fay ay bàkkaaram fukk lan moo mën a setal sunu xol nanu tub sunuy bàkkaar te dëddu leen waras na fay sunuy bàkkaar ngir ñu far leen yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla dafa jub yàlla xoolul nit ki xolam lay xool yàlla bëgg na sunu xol sel yàlla xam na lépp yàlla xam na li ci biir xol yi yàlla xam na li nu jublu ci sunuy jëf kenn mënul nax yàlla gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla baal na juutikat ba ndaxte moom nangu na ne bàkkaarkat la beneen yoon dinañu nettali waxtaanu yéesu ak nikodem